Revenons sur le cas Bah Diakhaté ce qu'il a dit de vous ce qu'il vous a fait ce qu'il vous a causé comme tort mm -hmm. euh, c'était impuni bi ngeen bi bi ñoom ñi fiy nekk mhm. mais il a fallu que régime changement régime am mu waxaat li mu waxoon mhm. euh, ñu teg ko loxo waaw loolu gis nañ ci que ne voilà justice bi bon je sais pas trop xam nga fi ma bëgg a jëm oui si si voilà. si, si. l'impunité c'est c'est terminé au Sénégal mm quand quelqu'un comme Bah Diakhaté se met dans la pendant toute une année ou bien des années muy attaqué ay nit man exemple laa ci maa ngi nii toog bi muy wax ne man maa ngi ñibbisi fii en février je suis pas rentré février je suis rentré six mois avant cela. donc donc ñu naan fausse information. fausse information voilà foofu la ñu ko mën a prouver di sosal nit ñi. Mm-hmm. di demander à ce ñu raxas leen ah gor boo nga xam ne ba muy jàng yow yaa nga yaa nga yaa nga fa nga nekk mu nekk di jàng góorlu ci àddunaam bay servir réew mi ci dignité. nga jékki-jékki sosal ko waxal ko loo xam ne dara du si dëgg et tu demandes même à ce qu'il y une purge contre ces gens mm-hmm. alors ce ce, type de personne là mënatuñ ko bàyyi muy exprimer wu moo tax la justice donc bu weesoo l'émotion ce qui est arrivé c'est mérité nga bëgg a wax mais c'est bien sûr c'est plus que mérité man nag à l'époque je n'avais rien dit dama mm-hmm. ko jotee dama ko classé noonu rek waxuma mm-hmm. si dara bi mu attaqué waatee premier ministre Ousmane Sonko wax ci moom wax ju ñaaw sama benn xarit sax moo ne mais sa waaja waxati na de ma ko sama waajan ci mu ne ma baa jaxate ma ne ko kuy kooku hmm. mu ne ma non sa waay da nga fàtte ki waxoon ci yow fii nii di la attaqué ma ne ko ah bon kooku kon mooy moom la ma ne ko ah alors euh, j'ai di que kooku lu mu am moo ko mérité suñ ko tëjoon euh, plus que ça mais est-ce que c'est pas pour des propos ñu tëj ko trois mois parce que yéen yéen nekk au pouvoir maintenant vous imaginez les propos qu'il a tenus à euh, à l'encontre de monsieur le premier ministre waxuma sax l'autorité qu'il est mhm. mais nit bi mu nekk doomu aadama góor ngay di ko jël di ko taftal loolu dans notre société je pense qu'il n'y pas plus grand crime que cela